ma ma yëgal euh, gars yi nee na moom mën nga mën dem ba 10 h parce que tardement bi di si maanaam. ah man à 8h a à Demba et Dupont wallaay wallaay kon baax na Demba Grégoire wax nañ la loolu. kon on regarde on léegi nag lii am di dama bëgg ñu décortiquer ko ñun ñëpp fii c'est la philosophie Baye Fall basée sur le rythme qui signifie service le travail et le zikr mooy glorification divine. Cette idéologie rentre dans le cadre du développement spirituel, mais participe inévitablement au développement perso personnel des adeptes. Grégoire indil cinq valeurs importantes à, à apprendre de la philosophie Baye Fall. indiwaatal beneen page bi s'il vous plaît le numéro un ñu ne jëfe ndigal c'est ça qu'on appelle la quintessence ah. mooy le respect des l'hiérarchie fonk hiérarchie fonk kilifa. importance d'avoir un guide mentor wala coach maanaam nga am koo xam ne da nga koy teg sa bët wala nga am kilifa rek ba léegi looluy kilifa bi beneen bi mooy avoir une épaule si qui compter et être humble am koo diir mbagg pour mu dimbali la nga bañ a daanu ba pare nga ànd ak ab doon ab taalibe du bon loolu mooy jëfe ndigal mooy la quintessence deuxième la ñaq jariñu la ñaq jariñu mooy indépendance vis-à-vis des autres maanaam dangay ngay pour jariñ sa bopp moo tax maam Seex Ibra naan lu sama ñàkk mën na mën ma kaa may jox mën naa kaa laaj ñoo la ñaan ko ah man Ibra Fall lépp lu ma liggéey man a may mhm. jomb na ma koo ñaan kon baax na indépendance vis-à-vis des autres beneen bi mooy confiance en soi nga gëm sa bopp xam yow yaay kan nawloo sa bopp def sa marketing de soi troisième ne rien attendre des gens maanaam jàppal ne yow bu dul yow rek yaa si mën maanaam yow rek yaa si mën a génn sa bopp yow yow rek rek rek rek rek rek maanaam tëngéej laay jógee yow rek yaa mën a génn sa bopp ne bu may ñëw tëngéej fii ak mois damay am sama oto bu mu mën sama bopp donc yow yaa war a mën a génn sa bopp. loolu mooy yàlla nañ la dégg. loolu mooy mentalité ñàkk jariñu troisième Baye Fall takk jóg Baye Fall takk jóg takk jóg takk jóg Baye Fall yi bu bu ñu waree dem rek wala bu màggal jotee dañ daan takk jóg takk jóg takk jóg takk jóg fi on n'a pas de temps à perdre amuñu temps bu ñuy perdre nañ nekk ci xitma bi. nekk ci li ñu war a nekk. mooy liggéey nekk si li ñu war a nekk mooy atteindre suñu objectif nekk si li ñu war a nekk mooy persévérer si li ñuy def. Mm-hmm. deuxième aucune place à la pros procrastination. Mm-hmm. yenn détails yeeg yenn affaire yi ñaak fayda yeeg yenn yi nga xam ne du la permettre nga atteindre sa objectif. maanaam Baye Fall day nekk grossiste du lijjanti détail. merci beaucoup. troisième chose optimisation de la productivité. maanaam ab baaxal lépp lu muy def maanaam day bëgg muy gën a ful mm-hmm. maanaam du neex tey rek nga ne ah kon xaaral ma ne yàcc na yasar moom du mus day xiif rek du musa a doyal mm-hmm. en quatrième position la jëf jël l'importance de passer à l'action mm-hmm. jëf jël l'importance de passer à l'action. On ne récolte que ce qu'on mm-hmm. Pas de réussite sans effort. Mm-hmm. jëf jël li nga jëf ngay jël. yàlla du fay wax bay jëf. jërëjëf. cinquième dernière nangoo tuuma. xam nga Pape Sidi nag munoo nekk entrepreneur wala munoo nekk si àdduna bi wala munoo nekk ndaw nga nekk si àdduna bi tamit di justifier à longueur de journée luñ la tuumaal. te daan dégg ñu ne Cheikh Ibra nee na mu jub jamono liy gën a jégaloo li lay gën a jégaloo suñu borom mooy nangum tuuma ak joxe kon nag yaakaar naa nangum tuuma bàyyi faa liñ leen di tuumaal bëri na mais doo leen dégg mukk ñu respecté. Mm-hmm. donc être focus sur ses objectifs. <laughs> Baye Fall dañ leen tuumaal lu ne wante ku fi bëgg sa chantier gaaw Baye Fall yi ils sont indispensables eh. incontournables gis ku kër sax ka ca gën a sawar nga naan yaay Baye Fall yaay Baye kon baax na deuxième être une personne résiliente et troisième position <coughs> avoir une grande maîtrise de soi macha allah ab Baye day dal ay Baay day xam lu xam day xam lu bari noppi. day xam lu lu bëri noppi. noppi waaw loolu day Baay Faal dañ koy. léegi nag lii nga xam ne ne wax naa ko fii yëpp sunu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina. <laughs> Pate Gallo. <laughs> lan la. Amadou Diop mii dina ko mos a dóor li nga wax dafa may dafa may def reetaan en fait que dafa mel na démb da toog nit ñi waxtaan démb dama pare euh, rajo. dem kër Astou Ndour basketteuse bu mhm. ñu dem <clears throat> seeti doomu maam Abdoul Aziz Sy maam Fat Sy yàlla na fi yàgg ànd ak wér yàlla na wér